waaye nag lu ko jëkk mooy wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi kon li ñu bëgg waxtaane ci loolu la tàbbi kon ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu taala wa rahahu wa ayyadahu ci ndigalam ak kàddoom ndigal li ma jox ngir xew-xew bi nga xam ne am na ci dëkk bi mu jox ma ndigal na ma li may def lépp naa ko bàyyi dem ba àggal fa sama bopp ba gisee sama bopp la xew muy lee xew ca Darou Rahman ak Pofdi muy basee ba nga xam ne dafa fàq ba daanu indi fa yàq-yàq yu bare bëri li ngeen di tuddee euh, catastrophe naturelle la daanaka kon muy mbir mu rëy moo xam ne sax jërutoon waxaat ci bitti waaye li tax ñu ko. leer mooy fàttali ndax yàlla def na liggéey bi la ci ëpp fa mu tàmbalee ba nag ni maa ngi ko doon xam étape buñ ci mos a toll it ñi ma koy leeral kon nag bu fekkente ne lu ëpput at mbir am na amaat te ba mu amee daaw métti woon na ndax yàq na toolu jàmbur yu bëree bëri ba daalo daaneeloon na économie ñi daay yëngatu ci wàllu mbayum dër ci foofa te ngeen foofa la ëpp. dëkk bi fale seen loolu di jóge daaw itam ñi yoroon ONAS jëloon ci engagement wax ne danañ ci def nangam dëggal na def nañ ci ay jéego kon ñu leen ci sant si jéego yooyu ñu ci def waaye jéego yi ne dafa des ndax lu ëpp at mbir ba daanu ren ji yàqaat na tool yu bari ñoo xam ne seen yaakaar yëpp mbay la woon ñu bay seen tool ba tool yi noppi bañ bañ bañ bañ deqi ba noppi bay xaar war a farmanko ndox mi jël yóbbu lépp bokkut ak toolu der yi bokkut ak wal gami wal nga xam ne kenn xamul fu mu jëm fa muy àgg ndax xam nga lu tax ne dëkk Tuuba ndox mi fi jógee lépp jaar ci bassin bu war a jàll kër kàbbu foofa la euh, mooy centre bi kon foofu war na doon liggéey boo xam ne wartu doon liggéey rek ñab-ñabal ndax ci CRD yi ñu doon def ci màggal Tuuba ci bureau gouverneur am na ñu fa laajoon loolu ngir wax ne ndax bassin bi xóotaay bi waaye ña leen fa teewaloon itam jëloon engagement ne danañ ko def waaye foofa itam day liggéey boo xam ne di liggéey bu tuuti ndax tëlib moo jëm njurul moo jëm Taïf kon yoonu mag la jëm Daaru Rahmaan tëlib ba dagg na boo fa demee kenn mënatu faa jaar boole itam ñàkk sécurité ga fa ndax xam ngeen ne ñi ñi nga xam ne dañuy dogale nit ñi. fu ñu xool xam ne oto mënatu faa daw bu baax dañ fa taxaw di dugale nit ñi kon loolu ab liggéey la bu rëy boo xam ne ñu ko seq ñu ngi ci soññ nguur gi ci ndigalu sëñ bi di leen ko fàttali ne nañ seet mu gën a gaawee ñu taxaw ci jàppale ci nit ñi ndax nit ñi sonn nañ te buñ jaaxalee ci sëñ rek lay ñëw amuñ fenn amuñ fu fuñ jëm mënuñu taxaw di manifester waaye son nañ ba ca deset ci at yële weesu yàgg na boo sëñ Sidi Muxtaar fi ne woon waa Pofdy di njabootu sëñ Modou Xari sëñ Modou Xari ku Sëriñ tubaa fonkoon la ñëpp xam nañ ni mu demee ci yoon wi yàlla def bañ fay bëgg def base ba gënalu leen woon dañoo gàntu te ñoom ku leen xam ku ne xam ne nit ñu gëm li ñuy def la bu toon kàddu sëñ bi ba àdduna tukki nit du ko fa def ba yëf yi jafe it si Cheikh Sidi Moxtaar joxe woon ndigal ba leen joxee ndigal boole leen ak Abdou Lahad Ka maire bi ak Modou Gueye ma doon taxawu yëf ya ñu ñu mujj jël engagement bàyyi ngir sëñ bi def ko. waaye boobu itam waxoon nañ dana metti ci ñoom ndax ña fa dëkk kenn wératut ndax yooyu bari na fa léeg ñu gis fa ay ñàngooru ki jaar lu ne fay xew ndax na na barab bindoo boole tali ba nga xam ne kenn mënatu faa jaar boole eh, xuttaangu turux yi nga xam ne ñoo fay am di dogale nit ñi ba ca desit ñu ñu ñu wax ne lëndëm gëm lëndëm tax na ñàkk sécurité gi yokk ba booba nguur gi ka fi newoon ministère énergie jëloon engagement ne darañ ci def ay làmb ba mbër waaye loolu boobu ak léegi bi ngi bëgg ma juróom ñaari at wala juróom-ñett ba gën defuñ ko kon na loolu tax ndax euh, bu toll loolu rek dañ leen koy soññ ci biir di leen ko fàttali comme niñ ñu baaxoo ndax yoon bi moom noonu mooy seenu doxin waaye nag toll na foo xam ne liggéey la bu jàmp boo xam ne buñ ci taxawut mën naa gën a indi fitna ndax xam ngeen ndoxam dëkk yëpp fa la jaar ren xam nga ne suñ borom moom Euh, yunazzilul xaysa min ba'di ma to moom fu muy wàcc taw moo ko xam indahu ilmu saha wa yunazzilul xaysa wa ya'lamu ma fil arham moo xam waxtu woon lay taw météo yëpp dañuy natt rek comme kenn xamul nu muy toll te gis nañ ne daaw ren ji nit ñi dund nañ lu méttee métti ci biir dëkk bi te li génn ci kër bari na ñoo xam ne toxu nañ seen kër dem rawatina biir centre biir Touba bari na lool te. assainissement bi ñu ci doon def bu fi àggee fii ak buñ ko yokkaatut waajal ko ci at mii bu déwénee de gën a métti ndax ren màggal gi fekk na waxsal bi ne ci digg bi waaye bu déwénee ci njëlbeen gi lay ne. kon boo waa day fekk waxtu bu gën a métti kon nagandi si mooy waajtaay bi ñu ko mën a waaj bañ ko yemale rek ci biir sa bi ñu ci defoon daaw waaye dolli ko xam ne tëkk bi moo toll noonu ndax ndax la suñu saa daa wax naan. ak mandooriku mu ngi tàmbalee ci yemali ñu yàlla yemaliwut mhm. waxoon naa ko ca réunion bi doon def ministère de l'intérieur ne leen Touba ñi ngi bëgg am gàllankoor jafe-jafe ndax bu fekkente lu ñu fi defar dañuy natt ne bu ñu ko def fi def ko fële te Touba dëkk boo ci natt benn quartier ci Touba ëpp ko mhm. boobaa loolu du noonu maandu ci ñi fi ñi fi dëkk te état bi nga xam ne moo yilif ñëpp di seddale it yaakaar naa buy séddale fu ci ne day xool ñi dëkk ci di xool dafay génn ci koom-koom bu delloo ko fa. kon nag loolu ñu ngi maa ngi woo léegi directeur ONAS ak ministre de la sa ministre bi yor euh, assainissement bi di Serigne Mbaye Thiam ngir soññaat leen ci nu mu gën a gaaw ñu def ci yitte def ci taxawaay jàllale ko ba ci euh, président bi nga xam ne moo di yilif nga xam ne ci ndigalam day def waaye nañ xam ne bu ñu ko yemalee ci lañ nattoon daaw te dolliwaatuñ ko. bu déwénee jafe-jafe bu gën a métti muy amaat moo desaat leneen tam mooy fora li ñuy wax forage rabattement yi nga xam ne mooy xëcc nab bi daa wax ne def nañ ci ñaar forage ci diggante ñaari yi waaye nañ xam ne bu fekkonte ne téeméer lañ ci waroon def defaguñ ci fukk kon ba nëgë ni nab bi ren dafa yokkaat ñëpp koy jàmbat daanaka àgg na ci fi jege jumaa ji sax ëppatul mètre nga jot ndox mi mm-hmm. loolu na kon buñ ci deful liggéey bu rëy dana indi gàllankoor. te Cheikh Mouhamadou Mountakha sax ci yitteem ak yërëm yërmande ak xam responsabilité bi mu yor dem na ba àgg ci joxe ndigal ba fii may wax yow ni am na ingénieur yoo xam ne jox nañ leen ndigal ngir ñu xoolal seen bopp ngir jëm ci gàttandu bu fekkee état bi nar naa yeex ndax yëf état du gaaw boobaa sëñ bi ci boppam defal ko boppam wooteel ko boppam taalibe Sëñ Tuubaa def ko loolu war naa toll ci ñaari semaine ba ñooñu tàmbali nañ cee liggéey ndax xam na ne bu ñu ko gëttanduwut ndax ñetti at a ngi ñuy soññee soññee nañ ci bitti soññee nañ ci biir waaye gis nañ ne fi àgg dëgg-dëgg day mel ne ñun ni ñu koy dundi ñoom xamaluñ ko noonu kon nag loolu rek mooy kàddu yi ñu ci doon wax di mosaw borom tool yi di ñaan rek suñu borom mm, wutal fa lu ko gën te nguur gi nga xam ne ñoo yilif nit ñi itam te yàq-yàq yu mel ni bi amee ndax daaw jéeg yaakaar naa digoon nañ leen ne daañ leen dimbule Abdou Mbacke nag yaakaar naa xamoon na ci dara waaye loolu itam yaakaar naa mujjutoon fenn kon moo tax ren jii bi ñu jaaxlewaatee itam ci sëñ bi la ñëw sëñ bi joxal ma ndigal kon it nañ fexe ba ni mu baaxoo amee fépp ci Sénégal fu ngeen dégg lu lu mel ni am fa. ña danañ leen recensé xam ña fa yàqu la xam la la fa yàqu luñ leen ci may dimbali ñu def ko loola itam nañ xam ne loolu euh, sëriñ bi moom am na ci ñoom yërmande lu mu ci war dana ko defaa loolu war a goru état la kon loolu rek mooy yi.